donc père yaakaar naa ni waaw mm-hmm. information yi mooy Sadio Mané mu ngi ci jàmm te test Covid yi aussi fédération sénégalaise de football bi jël nañ ay devant bay def ñoom seen test avant sax kaaf di leen defal test waaw dinañ ko def ñoom xam nga en fait dama la wax keroog ne la euh, Sénégal li ko waroon a dal yëpp dal na ko mm-hmm. boo seetee demoon nañu ba am quinze Covid loolu day day indi beneen jàngat. c'est-à-dire ni ñuy préparer quart de finale bi defe naa loolu ci li ëpp solo ci la bokk. mooy ni ñuy gérer le problème de de santé. Euh, test bi ñuy def c'est un test indicatif. parce que xam nga sax dégg naa maa ngi gis Gambien yi. ñi ngi wone ay photo di wax ñun zéro cas la ñuy am nangam. maa ngi dégg allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Uh, Mouhamadou Lamine Kane. Mouhamadou mm, Lamine Kane naka mu. waaw ñoo fi ñoo ngi ok impression par rapport ak match bi tey. waaw dañ bëggoon tànn ay kàddu rek. Mhm. ci suñu tay bi. Mhm. waaw daa mel ni hmm. dégguñ ko mais c'est domage garaawul ñu bàyyi ba beneen yoon incha allah pour hmm. téléphone bi batch euh, yaa ngi fi du xaaj bi jeex te per du per a ngi fi tamit <laughs> du fi du fi jeex incha allah on termine test uh-huh. yi test yi nga xam ni Sénégal da koy def mm-hmm. c'est à titre indicatif mm-hmm. effectivement mais aussi euh, euh, je pense que les médecins de la CAF euh, ne peuvent pas être aussi inconscients ou partisans ba di wax yow am nga Covid te amuloo ko ce qu'il faut c'est que boo seetee ba ba mu commencé ba léegi mm-hmm. équipe bu mel ni Maroc mosul am mm-hmm. parce que disposition yi mu war a jël yëpp jël na ko mm-hmm. boo defee négligence nag virus bi moom boo ko defee rek mu won la bopp mhm. donc je crois que fi mu ne équipe nationale du Sénégal ñi ngi ñi ngi gérer bu bu baax mhm. euh, euh, côté côté boobu mhm. premièrement deuxièmement euh, c'est une bonne nouvelle que de savoir que euh, mu ngi ci jàmm euh, mi ngi ci jàmm man xamoon naa ni peut-être qu'on va le garder en observation parce que quand même boo amee benn choc ba nga xam ni danga xaw a miir wala yu deme noonu je crois que les médecins euh, pour par précaution vont devoir vous te garder en, en observation. Mm -hmm. Mais je crois qu'il va, va revenir rapidement. Mhm. Donc, le premier adversaire du Sénégal euh, s'appelle Covid bi. Mhm. bu ñu fàtte ni Algérie ñibbi na. Mhm. Nigéria ñibbi na. Ghana ñibbi na. cest dire ñun on fait la fine bouche. équipe équipe yi ñuy taseel nii ñu gagné ñooñu. donc euh, l'adversaire il faut le préparer en toute sérénité te ni nga koy préparer mooy gagner. parce que di gagner ci ngay am xel ak dal boo xam ni mën nga defarawaat. bu ñu xamee adversaire bi dana danañu xam quels son les points précis sur lesquels il faudra insister. parce que équipe lu mu ay ay dana am ay points faibles. dana am ay points forts. da nga koy nangul nag point fort bu ko defee yow nga. Euh, euh, fexe ba point fort nga nag ko. Mm-hmm. Euh, ci point faible nga tu mets mets le maximum. Mm-hmm. et qu'on gis nga coupe d'Afrique bi du coupe d'Afrique boo xam ne day bëri ay buts nangam nangam parce que Cameroun bu dugalul deuxième but boobu Comore day dellu si. man li ma jàpp mooy Comore effectivement ils ont été testés positifs. Mm-hmm. xam nga ñun on a eu le cas avec Koulibaly. Mm-hmm. bi ko Sénégal teste lii CAF wax daf ne bu ñu la bu la bu lañ la testé nga positif c'est-à-dire loolu sax xam nga ça va être un autre débat parce que bu njëkk 48 heures la ñu waxoon. Mm-hmm. bi waa Comore seen góol bi ñu teste ko euh, mu négatif euh, la CAF a changé les règles du jeu ne léegi cinq jours mhm. looloo tax en fin de compte mujj ñu am gardien de but mhm. Mhm. il y a à boire et à manger ci affaire euh, organisation bàyyi à l'évaluation pour le moment fi mu ne nous on a un adversaire qui s'appelle ou le Mali qu'on se prépare pour aller les affronter pour gagner leen dem quart de finale ni leen di gagner nag mooy fexe ba ni ñu tëjee tanière bi ba nga xam ni Covid ba nekkatu fa ñu fexe ba loolu ñu gën koo dëgëral. Mm-hmm. parce que dugg génn bi mooy indi Covid bi. Mm-hmm. te boo ko fa indee moo fa indi Covid bi Covid bi moom euh, il paraît soxorul mais dafa gaaw wàllaate. Mm-hmm. ñu wàll leen c' tout ce qui s' est passé. il faut nga nangu ko xam nga il faut arrêter de dire c' toujours la faute de l' yow boo defee sa faute bopp da nga koy nangu. parce que ñun bu ñu ko nanguwul woon. ba léegi nii Covid baa nga ca biir. biir tañeer ba le reste maintenant on va savoir dans les vingt quatre quarante huit heures d' abord aujourd'hui euh, ah, ñaax leen mhm. ñu dem ñu dem gagné ji quart de finale mhm. comme ça ñu dem demi finale bu ñu demee demi finale bu ñu paree quart de finale bi mhm. ñu dooroo waxi demi finale kii nee na peu importe la manière ko vous euh, que vous recherchez nous autres, tout ce que nous souhaitons, c'est la coupe au soir du février Pour la manière, nous verrons après. kon père ñu ngi lay gërëm di la jox dig daje prochain match in allah. jërëjëf jërëjëf euh, Fatmata yow tamit euh, ñu ngi lay gërëm da ngay tàggatoo wala yooyu. <laughs> waaw dama lay remercier rek. si euh, dalal bi ma dalal ci sa plateau. Mhm. remercier aussi Pendo Ndofène ça a été un plaisir de partager. Mhm. plateau avec aussi même chose di remercier. di seetaan Sénégal 7. Mhm. on te souhaite bonne chance am te yow tamit ak euh, une très belle carrière. incha allah waaw Vito ñu lay remercier ci invitation bi kontaan nañ ci trop pour partager avis ak. Euh, mhm. père père père père moom tout le temps moom xam nga moom. fierté la ñu toog moom mu wax football très sincèrement. Mhm. il très pertinent en plus li muy wax da ngay xam ne maîtriser na ko. waaw di nuyu tamit internautes yi. xam nga di leen wax ne comme la fois dernière rek nañ ñaan rek. Mhm. nañ ñaan rek. Mhm. yàlla suturaal ñu xam nga may ñu ñu mën a atteindre suñu objectif mooy leen jël kub bi. Mhm. voilà après ñu ngi leen di remercier encore une fois yéen ñëpp di leen jox dig daje. Maroc vs Malawi nee nañu 1-1 la match boobu def en ce moment ñu ngi ñu ngi ñu ngi mi-temps. Maroc euh, Maroc euh, Malawi. kon maa maa ngi leen di gërëm bu baax. man tamit di rafetlu à chaque fois jotaay bi contentement bi ngay am pour toog ak per man moom fierté loolu fierté laay am te ah. euh, chaque match Sénégal c'est des leçons que j'apprends des leçons ci communication surtout nga xam ne père day toog il prend pas note euh, question boo ko posé mu doxal boo ko boo ko daggul sax <laughs> du taxaw macha allah yàlla na la fi yàlla yàggal père yàggal sa taxawaay xam naa ne Coupe d'Afrique bii nii 2021 ça restera ci sama mémoire ak euh, mémoire internautes yi nga xamante ne ñoo safoo programme mu Sénégal 7 maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm waa régie ba Bijou Malick ba Yash Malick coordonnateur de l' émission Junior aussi mu ngi woon fële. waaye mu ngi ci biir émission bi ak ñëpp ñi nga xamante ne jàpp nañ ci ba mu yemb tey na gañe nañu réew mi neex ñëpp ñëpp nekk di di di ambiance ak yooyu waaye ñun daa mel ni yaakaar jiguñu waaye yaakaar ji moom yàlla na nañu jig waaye yàlla piccé yàlla piccé bi yoon ay waay yàlla piccé ay waay yàlla piccé kon jaajëfal naa leen ci babaay caaw caaw caaw caaw caaw caaw